tey ci alxames bi nag lañ doon installé ki nga xamante ne jamono ji moom mooy moom mooy président conseil économique social et environnemental di sa Seck ci boobee poste mu daal di fay wutu ki nga xamante ne moom mooy Aminata Touré sa Seck gannaaw ba mu jëlee ay kàddu mu ngi xamle liggéey bi nga xamante ne teg nañ ko ci ay loxoom fas yéene na ko def ca na mu waree. ñi nga xamante ne nag ñote woon woowee cérémonie di ay kilifa di rafetlu bu baax a baax àndub Idrissa Seck ak ki nga xamante ne nag moom mooy njiitu réew mi di président Macky Sall. di ci sant yàlla parce que bi ma ko déggee ah man lépp man Sénégal moom ma ñor ak lu koy defar surtout sa jeunesse bu ma yaakaar ni war nga ci mën a def dara yaakaar naa ne damay ñëw participer. di ànd ci dogal bi président de la république jël pour nommer Idriss Seck président conseil économique social environnemental mu di ànd boo xam ne comme ni ko waxee mu mel ni mburokum soow ñun Sénégal loolu la ñu soxla ñun danoo soxla ay kilifa yu juboo réew mi dafa soxla kilifa yu juboo dañ ko soxla ci ni jeunesse bi toll bëgg-bëgg jeunesse bi ak fi àdduna toll xale yi dem ci géej gi loolu yëpp yaakaar naa président toog na xam ni li ko war mooy woo tàllal loxo ñëpp ñëw bon woote na Idriss Seck ñu wuyu si ko mu ñëw jox ko penc penc mi nag yàlla na doon penc boo xamante ne nii dafay jariñ Sénégal dafay jëriñ mbay mi sàmm mi parce que Sénégal ay miti naka la ñuy def nag ba fépp tane loolu lañ leen di ñaanal jubóo bi mu doon jubóo boo xamante ne nii jubóo falaa-falaa la mu doon jubóo dëgg te boobu dégloo discours bi Idriss Seck wax dafa di discours boo xamante ni eh, man de gëm naa ni li mu wax am na mooy maanaam ñoom ñaar jub na ni mburokum soow euh, ñëw représenter président Moustapha Niass ci installation président conseil économique social et environnemental président Idrissa Seck may tàmbali di ko sant di ko gërëm di ko félicité di ko encouragé ci courage bi nga am ci courage politique bi nga xamante ni am na ko ba accepter li nga xamante ni moom mooy quand même euh, cette fonction bi nga xam ne président de la République moom moo ko ko jox waaye nag jàpp naa ne moom li ngeen di wax lépp tontu na ci parce que nee na tey jii moom ak président Macky Sall dellu nañ mel ne mburoog soow loolu nag ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak président Macky Sall di euh, rafetlu li nga xamante ni mooy vision dañu koy rafetlu di ko magnifier parce que jàpp nañ ne président Macky Sall vision bi mu am pour Sénégal vision bu baax la li nga xam ne moom la bëgg ci Sénégal lu am solo la. solution bi di sant yàlla bu baax a baax a baax di ko rafetlu itam di ñaan yàlla ànd ko moom président bi bu bees bi itam. président di Seck ànd moom liggéey ni ko président def Macky Sall ba liggéey réew mi lu kawe kaw njort président def installation bi de vraiment suñu xol sedd na ci guyu li ma gën a neex nag mooy le discours a été pertinent vraiment discours jàngale la discours jàng la discours la boo xamante ni képp ku am dégg-dégg rek boo ko déggoo boo ko dégloo di nga xam ni li euh, l'union fait la force tamit dañoo taxaw pour liggéey euh, sunu Sénégal gi ñi mënta jotee mën a jotee euh, ñi munta participer mën a participer ndax nit ñi dañuy toog naan le conseil économique lan la lan la tey nag defe naa ku déglu le président du conseil économique bi ñu installé di nga xam lan mooy conseil économique social et environnemental. nañu am mbégte lool am contacté parce que ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal tey bu ñu sañoon ñun ñëpp benn la ñuy doon. di am rafet njortu ci suñu président Idrissa Seck ku ne xam na ni ku gëm réew mi la ku gën askan bi la di remercier nag président Macky Sall parce que moom mi ngi jox pour ñëpp nekk ci jàmm ñëpp am jàmm Sénégal yëpp am jàmm ñi ngi ñaanal président Idrissa Seck yéen bi oyof tey moom am nañ mbégte te yaakaar naa ni fi ñu koy xaar dina fa àgg. sant yàlla ndax xam nga nit bu fekkee ne dañu nekk ci réew te kuy dëkk fu ne fa nga bëgg fa nga dëkk danga bëgg muy am jàmm président xool ba xam ni. waxtaan jot na mu waxtaan tënk seen kàddu pour lan lépp luy defar institution yi lépp luy doxal institution yi président Idrissa nangu ko kon jullit yi war nañ ko ñaanal yàlla citoyens yi war nañ ko ñaanal yàlla président yi di ko ñaanal yàlla lu tax parce que li sénégalais yi bëgg moom la def yaatal nguur gi euh, ñi nga xam ne yaakaar na ni bu ñëwee dinañ ko jàppale ci liggéey tey ku déglu tey président ni mu schématiser ak mbir mi nga xam ne bu ko yàlla jàppale dana am résultat ci conseil économique et social bi. Euh, rejoindre le président Macky Sall. ndax dañoo ne bu dee liggéey rek moo la tax a jóg buñ la woowee ci liggéey réew mi di nga ñëw tey amaana buñ ko woo woon mu bañ a ñëw c'est parce que dinañ ne intérêt personnel am lay topp ndax daf ci am politiciens ne seen intérêt personnel ñu topp mais bu mu waxee taane le président Macky Sall ba mu wóor ko ne tey war na ko rejoindre war na ko jàppale ndax 2024 dafa sori tey ñaari fan rek boo toogee lekko am nga am problème. tey bu ñëwee di jàppale le président Macky Sall ci liggéey bi vraiment ñëpp dañ ko war a saluer et puis ñu bàyyi le mot transhumé transhumé dafa mu ko utiliser ak fu ñu ko war a utiliser lii est juste que dafay rejoindre l' état merci le pouvoir présidentiel ndax même au niveau des États-Unis bu élection jotee ku ne day voté ku ko neex mais am na ñu ànd Macky Sall bi élection jotee voté luñ ko vrai ou faux mais bu élection passé dañu war waruñu contre état boo contre état. da ngay déstabiliser tout tout tout tout le peuple te boo déstabiliser peuple bi euh, tout le le gouvernement bu gouvernement bi euh, wàccee bu amee bu amatulee doole ñun réew ñu ñun ñoo koy yëg ñun ñi dañu war a xam loolu kenn du xeex état c'est dangereux il faut ñu soutenir le président Macky Sall fu mu toll nii ba 2024 ku ne buy am fu ñu far mu am mu faraat feneen. man sama réaction vraiment loolu la. gannaaw ba ko njiitu réew mi daal di tabbee ci bopp conseil économique social et environnemental moom Idrissa Seck loolee ñu bëri daal di koy jàppee ab war. ñi nga xamante ni nag dékk nañ leen suñu micro ñu teew woon boobee cérémonie beneen gis-gis lañ ci am bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu sa Seck nag yan bi ñu ko yan dafa diis lool teg ci nag lu rëy ci moom. waa àdduna noonu la ñii dañuy politique ñoom dañuy politique wax na ko moom rek wax na ko ci boppam. daana ŋaññ daana def mais léegi nee na loola weesu na comme que nag loola weesu na ñun ñi nga xam ne ñun ñoom ñoom noonu jiite te ñun ñu bëgg yokku nanu ànd ak ñoom ci li nga xamante ne ñun mooy lii tax réew mi yokku bu ñu demee ba xam ne ñoom ñi kat lan wax ak la ñuy def du benn bu boobaa yéen xam nga saskatu xibaar kenn mën moomul gémmañam journaliste mën na analyser mën na wax xalaatam kon bu boobaa Sénégal yi seen bopp ñëwee ah ñii kat lan woote woon ci juboo ci déggoo du amul waaye pour le moment loolu li fi ne mooy nee nañu mel na nu mburukum soow mburuk soow boobu nan ko jël ñun poñse ko naam mu jàppale mu ànd ak président de la république ñu changé fii fii bañetee doon rek lu kenn xamul xam nga amul benn citoyen bu la mën a wax ni conseil économique et social lii la ñi fiy liggéey xam nañ ko ñenn ñi xam ne yenn niveau yi xam ne mais sénégalais lambda bi xamul lan mooy conseil cour euh, conseil économique et social léegi nag ci Idrissa Seck la des pour mu xamal ñu njëriñu conseil économique et social lan la lan la ci jeunes yi mën a am lan la ci ouvrier yi mën a am artisan yi lan lañ ciy séntu képp kuy citoyen te am ci wàllu woy wékku nga xool yow kat conseil économique et social jëriñ na la lii bu boobaa la ñuy am yaakaar comme ni ma la ko waxee ci loolu la ñuy séntu Idrissa Seck ak conseil parce que benn lam du yëngu moom dong mënu fee defar il faut mu ànd ak ñi fi ne ak ñi koy jàppale ci liggéey bi ñu fexe ba def fi loo xamante ni sénégalais bu yeewu do xale yi dootuñu dem ci géej gi inondation yi jeex mbën euh, mbënn mi jeex mbëkk mi kenn dematul loolu la ñuy xaar ci Idrissa Seck ak képp koo xam ne ñëw nga pour ànd ak moom pour que vision boobu mu mën ko perpétuer dañu lay sant jëla gërëm ba pare nag ànd booloo nekk benn comme ni ko président Idriss Seck waxee je pense que wax ju sew ji amatul solo euh, li am solo moom mooy ñu booloo nekk benn liggéey réew mi te je pense que loolu moom mooy la le message bi nga xam ne moom lañ jëlee ci tey li conseil yi mu àndal. waaye ñoo yàlla sa borom jàppale nañu jàppale noonu liggéey ko ni koy liggéey comme mboolem Sénégal Sénégal si am nañu ko bëggee rafet njort li ñu bëgg lépp ñu def suñu suñu seen njort loolu loolu bëgg ndax idi xam nañ ko baax yàgg na si gouvernement nekkoon na fi premier ministre. kon bu jiitee conseil a social environnemental doo ko ñu laaj te xam nañu ko. Idrissa Seck nag euh, ñun de ñun li ñuy xaar ci moom vraiment Sénégal gépp nag laay wax à plus forte raison nu les conseillers li ñuy xaar ci moom mooy fas yéene liggéey ñun rek la xaar ci moom ànd koog moom liggéey liggéey bi vraiment man de personnellement je suis positive te gis naa ni dina liggéey ndax liggéey moo ko ñor moom la xam te it bu buñ ko jàppalee rek ñun ñëpp ñu àndandoo ak moom rek dinañ liggéey pour njariñu Sénégal. am nañ ci yaakaar ndax jëfee na ko waxee na ko te it xam-xam bi yaakaar naa ni mate na ko président Idrissa Seck ku ne xam na ko ñun waa conseil économique moom am nañ ci yaakaar bu baax ne yéen bi diis na mais dinañ ko ko yenn la yëpp dinañ ko ko yenn la wax nag mënta ñàkk mais wax wax jàmm lay mujjee ndax Sénégal moom jàmm rek moo fi xaj. man li ma di dénk rek mooy bañ a yàkkamti nit boo yàkkamtee. di nga dem feneen nangu fa loo xam ne bañoon nga ko sa réew pour pourtant bu leen yàlla dimbaloon ba ñu dem ay dagg pom ay witti tamaate lañ fay nekke te pourtant fii buñ ñu fi toogoon yàlla am na patrimoine baa ngi fi l'essentiel mu ngi fi mais yàkkamti nag moo baaxul ci doomu aadama yàkkamti baaxul yàkkamti dafa yàq rek lay jur kon nañu dal te jeunes yi tey mag ñi aussi war a wax nañu wax réew mi nag dafa yàq ñii war a wax waxuñu te ñu xamul ñu ngi leen di bàyyi ñuy wajo ji rek yàq lépp nag mais normalement xale yi bu ñu leen téyewoon organiser leen mën nañ leen téye ba kenn du am xelu naan yaa ngi génn bitim réew mi. lu ma ko euh, li ñu koy dénk yan bi diis na mais mën na oyof na ko teg fi mu ko war a teg wax ñu mu war a waxal te jël ko ab yi ñëpp nit boo jëlee ab yi ñëpp rek da nga mucc mais ku fekk ni benn nit nga bëgg jël sa xel rek moom ngay deme da nga daanu te doo atteindre sa objectif quoi li ñu koy dénk daal na am nay concerté wu parce que ku concerté wu rek doo juum.